huit cent euh, cinq vingt six hectares yu yu mujj yi mhm. beneen bi di cent cinquante hectares mhm. euh, est-ce que par rapport ak wàllum dëkkuwaay aussi des fois duñ am problème entre fan la nit ñi di dëkk à Dakar nga xam ne euh, mhm. kii grouille de monde ak aussi nan lañ war a def pour mën a sàmm alam gi alors xam nga wàllum dëkkuwaay problème aménagement la te ñu ñëpp xam nañ ne dakaar dafa saturé déjà et que bi nga dindi ko kooku moom mooy tu mets en danger même la population de Dakar gis nga lii dafa waroon interpeller ñëpp parce que nga gis géej gi bés bu mabbee jublu si Dakar. Mm, ñëpp dinañ xam ne lépp dëgg la. dinañ xam ne la nature kenn du foog moom kenn du foog moom ça c'est un nga deuxièmement xam nga bande des filao bi ti sais benn benn genre concentré de biodiversité la. Mm. tey jii chaque jour nga dégg si télé ak rajo yi que ay ay jaan wala yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn espèces yi dugg nañ si kër yi. Mm-hmm. parce que seen habitat dañ ko détruire mm-hmm. carrément. Mm-hmm. mais pour revenir carrément à ta mooy que ñun bu ñu demee devant le juge. mooy si déclassement bu 150 hectares yi dañ ko ne lii c'est c'est c'est ça milite pas en faveur du climat ça c'est un parce que euh, la bande de filaos puits de carbone la nga saxaar si gën Dakar poussière boobu ngay wax. Euh, filaos yi dañ koy naan puits de carbone la ñu ne ko fii ay nit dañ fiy liggéey am dañ fiy dañ fiy dañ fiy ñàkk jëriñu. donc dafa baax ci environnement ñu ne ko lii day créer benn équilibre environnemental mais malgré tout juge bi ne non le président li mu li mu visé intérêt général la ñu ne ko du intérêt général parce que le président bi mu koy def dafa violer article L 48 du code de l'environnement bu ne heure bo entamer un projet un programme d'infrastructure d'envergure il faut au préalable nga réaliser une évaluation environnementale et malheureusement amul fenn fu ñu ko defee ñu jël le plan d'urbanisme de détail ñu teg ko approuver ko rendre ko exécutoire ñu ne le juge lii sa viole le code forestier parce que zone classée xam nga bu ñu waxataanee si foncier léegi mun naa la expliquer nu ñu organiser foncier Sénégal dañoo ne tant que urgence imminente amul zone ba nga xam dañ ko classé comme forêt kenn waru ko laal parce que forêt la zone classée la donc mu viole les disposition du code forestier mu ñëwaat viole waat Euh, benn disposition moom mooy que le ce qu'on appelle le décret d'application du code forestier bi naan pour nga laal sax zone classée bi nga xamante ne c'est da nga ko bëgg a protéger y a ce qu'on appelle la commission nationale de conservation des sol il faut nga am seen avis mais le président n'a pas demande l'avis de cette commission oh, nationale de conservation des sols pour prendre ce décret Macky Sall bi jiite woon Sénégal mhm. musul dund ak ñun war may teggi nag kersa ci ne non lii moo war a am xam lu mu xam. Mhm. li mu gëm li mu bëgg. vous le faites noonu la mos a dundee ak ñun. malheureusement nguur bu réew la ñu amoon. <laughs> ñu bàyyi ci kàddu gi paasa <laughs> malheureusement malheureusement xam nga xam nga loolu xam nga loolu dafa doy waar leen bu baax a baax ça veut dire que mm. une violation manifeste mm. de tous les instruments juridiques mooy textes yi organisés forêt zone classée yëpp dañ ko violé au vu et au su de tout le monde mm. malheureusement bi ñu demee devant devant la justice ñun li ñu constaté moom mooy que dès l'instant que une partie de cette bande des filao a été affectée à l'union des magistrats du Sénégal mais conflit d'intérêt day am ah pour yow juge bi ah man loolu lay jàppale jusqu'à la preuve du contraire parce que déjà euh, le président n'a pas visé un intérêt général ça c'est un c'est deux c'est des intérêts purement privés parce que ay coopératives la ko jox ay groupement ay magistrats ay conseillers municipaux ay impôts et domaines et privé la ko jox donc loolu amul benn but d'intérêt général n'est-ce pas parce que bu nekkoon tey jii ay même bu nekkoon ay collective la sax je pense que war nañ ko xoolaat te ñàkkul fu ñu ko def Sénégal donc c'était pas urgent ñu def ko ci bande filao mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. alors loolu bi mu amee bi mu jëlaatee décret bi aussi comme bee passé débouté woon nañu parce que le juge moom il s'est arc-bouté à dire que mm-hmm. le président poursuit un but d'intérêt général ñu ñu ne non ñu introduiraat un recours léegi nag cette fois si dañ ko fàttali convention internationale yi nga xamante ne Sénégal da ko ratifié moom mooy accord de Paris am na sur le climat parce que xam ne ne climat bi jaaxal na ñëpp mais y a la convention internationale sur la désertification convention yooyu décret yi président jël da ko viole violé ko violé ko manifestement mm. léegi nag ñuy invité le juge mu xam ne li président def 2018 jusqu'à maintenant amul benn dose d'intérêt général bu fi am mm. li si am moom mooy que ay intérêt privé la doon jéem a satisfaire benn clientèle politique léegi nag y a lieu bi annuler ses décrets. mooy procès suba bi. mooy procès non pas suba le vingt cinq. incha allah le vingt cinq oui. le vingt cinq avril incha allah. y aura un procès pour la cause environnementale et essentiellement environnementale. Pa Assane ci côté boobu environnement bi ñu di ko agressé ci côté boo xam ne ñun ñi nekk ci presse bi ñëpp ñi ngi doon dégg nit ñi di ci wax bande des filao ay coow am ñu baree bari déjà dañ leen ci tudd ci ay coor ak yeneen yoo xam ne xëy na ci wàllum liggéey. pour pourquoi le combat nit ñi porté wuñu ko ndax duñ ci dégg lu bari euh, comme ñoom niñ ko defee ñoom ñu nekk ci environnement ñeneen ñu dëkk même à côté def ko wala des dignitaires. waaw mais euh, Issa bala ngaa porté xam. waaw tey jii nii li moo expliqué nii am na ci yu bëri yu ma ci doon dégg. mais dafa gën a leer sama bopp. mais parce que da nga ko fi teg. Mm-hmm. boo ko fi tegul da ngay jël sa caméra comme ni nga ko defee woon ci jamono. Mm-hmm. sur ga ñàkk garab ci ndakaaru dem fekki ko mu wax la. mais tolloon nañ Sénégal boo xam ne ñoom ñoom li ñuy lijjanti environnement noonu nit ñi bakken ñun suñu bakken lañ taloon benn moment. Mm-hmm. talatuñu leen woon. 12 ans de magistère du président Macky Sall. douze ans d'extraction de notre vécu au quotidien maanaam man damay toog mu yàgg ma ne mais ñun ki ñu jiite woon ñaara am soxor bon wala ñàkk xam-xam te benn baaxu ci mais nag ñàkk xam-xam sax a tane mais bu àndeek bon nag moom leneen la te loolu la ñu dund nan nga mën a comprendre kilifa bi toog ne la ah <laughs> lii kat bu ngeen defee nangam ak nangam étude bi ci war a dem bu ci amul danger la. ki la wax danger. yow nga jiite boo déggee terme danger li war a njëkk a ñëw sa xel xamal lu mu doon ah gars yi taxaw leen. taxaw leen ñu xool. nga forcé ànd ak say magistrat magistrat yi jàpp naa ne ñi ci ëpp dañoo baax waaye nguur gi fi nekkoon am na ñu mu ci doon utiliser. loolooy dëgg mais dafa am lu nga xam ne daf ñu jaaxal mooy wax na magistrat mais yeneen i corps yoo xam ne ñun par exemple da nga koy dégg xëy na mënuñu ko confirmer wax na inspecteur des voilà mooy ñu yore suuf si déjà conseil municipal yi conseil municipal yi est-ce que finalement kon foofu laa bëgg a jëm paasal wax imaam yi wax mbër yi foofu laa bëgg a jëm est-ce que xeex bi est-ce que xeex bi ñu ko war a ngànk dëgg mën nañ ko ngànk waaw non su fekkente ne dañ ciy tudd kadas tudd ci impôt yi demee tudd ci ñi war a àtte après ñi nga xam ne ñoom buñ demee ci yoon ñoo war a fomp seeni rongañ tudd ci même ñi nga xam ne ñoo yore maire bi nga xam ne ñoo war a protéger la zone finalement ouais, une chose. Mhm. moo fi nekkoon décidé. président moo fi nekkat décidé. lenn fi nekk. y a eu benn euh, pré-annonce et annonce qui ont été faites. Mhm. pour dire au Sénégalais lii président Macky Sall ak ay ñooñam nekkee du dëggutu du yoon. le Pastef l'a dénoncé dix ans. ànd ak ay alliés ñëw amee projet tekk da ngay mhm. dérouler. ci déroulement bi nag dafa am lu si jiitu. les rapports escomptés annoncés ça et là yëpp ngay teg ci taal bi. doxal maa ngi dégg xaw ma dëgg la wala du dëgg ne directeur de la police boo ko yàgg dañ ko wàcc xaw ma ndax am na wala amul. Hmm. conseil des ministres tey la. donc forcément y aura wax Sonko un moo di ne ni Sud FM hmm. mooy tey la mbir yi di tàmbale nag au delà de c' est quoi ça fait 15 jours. que il prestation de serment. léegi nag loolu li moo signifié moo di ne te jàpp naa te am naa yaakaar yaqin bu ma gëm la. Hmm. ñi ma gis en tout cas muy le président de la République di le PM ñu gis ni kat ñii am na nañu diine buy feeñ ci ñoom ragal yàlla parce que ragal yàlla googu nag dañ dañ mm-hmm. on en a souffert ah nous on a été dirigé ba un moment donné par ay majjos makaki yanki yoo xam ni gëmu tous xam lu nu xam laleen neex ànd ceeg ñàkk kes ak ñàkk teggin lii Issa di laajte bu dee ñooñ ñëpp conflit d'intérêt dugg na bu si amee kenn wala ñenn ñoo xam dañoo ne ci nguur gu bees gi laala ci nañ fësal seen bopp lijjanti que ne nañ ko régler. dëgg la la nañ ko delloo loolooy dëgg. loolu bu amee. la politique de l'exemple et par mm-hmm. l'exemple mm-hmm. données yi changé ñu avance réew mi nag saa yi dañu war a génn si si lenn li donc nguur gu bees gi daf cee war a jël décision ne fii danger la am na ñaar fi ngay wax euh, zone des filao mm-hmm. jam ñaajo jam ñaajo du bërëb bu tabax bërëb bu mbay la zone sylvopastorale la alal ju dul jeex mu ngi fa daan génn te mu ngi fa mun na fa génnaat li ñu fay tabax du yoon. Mhm. du zone industrie stade ba fañ ko def du palaasam stade boo xam ne entretien 800 millions la ñuy wax par an nga teg ci ñetti match ak nga fay am boo xefee du bëre sa yóbbu woo ko fa nit ñi di fa dem di ko dundal la ngay def. day day màbb day parce que sol bi baaxul. Mhm. bu gars yi ñëwee ñu ne ah affaire bi gason bi foog ñu xolaat ko. coono boobu. parce que sol bi baaxul donc du palaasu tabax palaasu tabax dangay ngay décongestionner Dakar jël mettre en valeur la région de Thiès effort bi nga def Diamniadio boo ko defoon Thiès nit ñi dëkki fa ak feneen non Thiès ba dafa neex am na espace boo ko defoon Louga nit ñi dem fa nga boole ko jël leen l'industrialisation bu kaa accompagner nit ñi def nii Dakar décongestionné nga delloo littoral bi na mu meloon delloo ki xool leen hôtel Azalaï bi ñoo tudd fan yi hmm. d'accord c'est bien beau et cetera mais daf ñoo xañ plage. ma nga ca géej ga. dugg jël espace bi. naka noonu teeru bi nga xam ni fatt na fatt. dakaar amatul plage. booy yi di obligé di dem Mali boobu fas di ñàkk seen bakkan. y a tellement d' injustice et inco incongruité yu am yoo xam ni nguur gu bees yi lenn rek leen di dimbali. Mm-hmm. fu ñu teg ñu ne fii fu mu du palaasam ñu teggi teg fa ca des. jàmm na ñooy. est-ce que teggi teg foofu noonu dina yomb bu fekkente ne ay titres fonciers la ñuy jël di ko joxe. ñi ñu koy jox ak yooyu noonu nga xam ne ay groupe lay doon. yu yu dëgër ci réew mi. est-ce que yomb na dindi.